foire euh, ca Salwaraba ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaye tamit di am mbégte kontaan di nuyu Pape Laye Mbengue nekk ca HLM Grand Yoff raq la mag la ci ki nga xam ne mooy Mami Mbengue di nuyu tamit waa unité 26 ku ci mel ne Cheikh Tidiane Ndiaye euh, kooku suñu xarit la suñu frère la di nuyu tamit euh, suñu papa ñoo ko père Momar Seck Ndiaye bëgg sëñ Cheikh Tidiane yal na yàlla yokk fanam bu baax a baax a baax a baax di nuyu tamit ki nga xam ne suñu xarit la du dañ ci moom di waa kër Medoune Thiam yëpp pharmacien sopp na bi rawatina sama jigéen personnel ñu naan ko Ndeye Roqaye Thiam borom Makoutaar nekk ca Kastoor bëgg El Hadj Abou Bilal ba mu jeex tàkk di xaritam ñu koy nuyu tamit Khady Thiam daaray sopp Abou Bilal ñoom Mansour Ndiaye Ousmane Boub pharmacien Kastoor waaye nag euh, palme d'or bi ma koy jox Roqaya Thiam borom euh, ceeb yu neex yi te nag lu mu am bokk nit te du ci yi te nag wax dëgg yàlla nit la koo xam ne seexluwul kenn ndax ku nar a ñeme toog ak ay euh, nit yoo xam ne nag wax dëgg yàlla boo leen xoolee danga ci am tuuti xel ñaar mais moom dara ku yàlla baaxal la ñu koy nuyu maire Mamadou Diayité ak suñu yaay ajaratu ramu saaxo nekk ca Banjul di nuyu tamit Oumy Ndiaye ak Wanda njaay nekk ca Londres Tafa Sila ak soxnaam ñu ngi koy nuyu ca Londres nuyu nañ tamit Cheikh Ndiaye Teranga nekk ca Gabon Libreville ñoom Njegaan Ndiaye ñoom Thierno Aw Omar Sow maman Poutar Ndiaye ma nga ca Gabon di nuyu tamit Pa Di Fall ak Damlo ak Dije Kebe ñoom nag euh, ña nga foofu ca Londres ay euh, ca euh, Torino ay promoteur na ñu ngi waajal nag ñaari soirée pour jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënd mi yàlla nañ ci yàlla may jàmm Awa Thiam dit Eva nekk ca salon ba diwaan Galas du angle 20 ñoom Mama Fall Sali Fa Souri Ousmane Diop Amle Ngala Samb Abbas ak Suzanne yëpp ñu ngi am mbégte léegi nag dañu dem seeti capitaine équipe nationale mu wax ñoo ndax dañu nar a ñu teel a tëdd ba a yàq suñ samedi waral lu muy demee waaye ki kan la eh ki ban booy la Pape Demba Cissé ah eh Demba eh Dembisko eh eh Demba eh eh booy Demba eh boo dem ba kaay boo dem ba booy samedi samedi la Youssou Ndour tëgg soirée bi de eh booy bu yàq soirée bi de booy samedi booy Youssou Ndour day tëgg de bu yàqee suñu soirée rek wóor na yàlla booy Pape Demba booy Pape Demba si sa booy kaay. salaamaaleykum <laughs> Koutia merci Pape Demba Cissé bon ñu ngi koy préparé comme euh, marché bi comme euh, ni ñuy préparé yeneen marché yi ngeen baal ma quoi man. Euh, su ma la setul mais may woo menuisier yëpp pour ñu ñëw parce que man ancien menuisier la gis ngeen yàgg naa jaar naa ci menuiserie quoi di woy booy rabote yi ak ñi def décor tout le monde ñëpp maa leen di woo parce que su ma gisee booy yor scie ak contreplaqué ak planche damay fàttali bi ma nekkee menuisier quoi <laughs> moo tax yàlla waxul kenn dara quoi donc bon man li may wax mooy on va gagner on va gagner parce que Euh, wax naa ñi nga xam ne ñoo yor waañ bi euh, wax ñu gunge foofu ci Côte d'Ivoire nañu fexe ba toggal ñu ceeb yoo xam ne du niin na nekk ceeb yu wesang na nekk ceeb yoo xam ne vraiment dinañ ci mën a cop nicement naan suñu ndox jàpp bon actuellement nii nangu naa portable gars yëpp quoi amul woo sa gel amul woo sa kenn xam nga parce que gel yi dañ lay stressé bon des ma am ay gars yoo xam ne dañu rocceeku alors bébé chou foo nekk ñaanal ma xool ma may takk lii yooyu amul bon may patron équipe bi te incha allah bëgg naa affaire yi jaar nice quoi bon li may ñaan waa Sénégal mooy euh, Euh, nañu jaxasoo quoi ak euh, parce que tamit nit ku nekk am nga loo yaakaar quoi bon damay wax ci cadre euh, forme bon nice bon kenn ku nekk lekk nga xaal ñi lekk ay ndambe bon yooyu pour mun a jàpp vitamine yi quoi nice ok <laughs> bon léegi ñun ñu ngi wax ne samd ci guddi. fu waay mën a nekk ci Sénégal à partir de vingt heures bu yow nga génn commencé fetu bilaay duñu leen teg gàccee man maa leen ko wax man si sa si sa ngaari ñar meew <laughs> non soose laa nag quoi mais ala mën a ci ara kayra la ala barka man din ko dee soose ki ne kole kole kole man na ko kole bu soobee yàlla ndam bi dafay ñëw Casamance laa juddoo yaroo Casamance dégg joolaa dégg soose day baax li ma bëgg mooy képp koo xam ne xam nga Ivoirien nga dend ak moom fi ngeen di liggéeyee ci bés bi côté mystique quoi parce que waa Casamance yónnee nañu ay mystique bon nee nañu képp koo xam ne da nga xam Ivoirien je parle ça en français tous les Sénégalais qui vivent avec des Ivoiriens le jour du match avant le match il faut prendre euh, benn rëq nga rëq ko <laughs> sa loxo tu vas gifler un Ivoirien <laughs> quand il gifle ça fait taf ça va marquer un but quand il gifle encore ça va faire deux quand il faut essayer de euh, regardez le match avec les Ivoiriens si les Sénégalais giflent un Ivoirien ce sera un but donc sept gifles ce sera sept buts <laughs> donc on va gagner euh, on va gagner et je demande euh, cet appel ay caaxaan maa ngi wax ne képp koo xam ne xam nga Ivoirien fexeel ba invité ko sa kër mu seetaan match bi war nga fekki ko war nga romb ko si mbedd bi mbéj ko soo na ko tel xamal ne bal bi dina romb ci camp yi ba na ko tel a tel xamal ne dina dëggoo <laughs> mais xoolal affaire yi dafay nice quoi dañuy dugal te xoolal maa leen ko wax à partir de 19h45 man moom xaw ma kan mais man moom su ma centré wul dugal xoolal bal dina jóge sama tànk dugg ci biir benn doy na ñaax day ëpp parce que ñaar dafa ñu indi problème benn doy na kon gaa yi ñun ñëpp lañu àndandoo benn benn benn <laughs> xoolal su ma dugalee ba ñëw ma ci catukaay ne eh, sama bii bi caaxagoon <laughs> sama bii bi eh caaxagoon sama bii bi gun gu tee caxe <laughs> goon goon